mbokk yi déglu fii ci seen rajo Safina TV tabarakallahu gannaaw bu nu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci sangu-sang yi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wi nga xamante ne ci la ñu nekk te moo di weeru tabaski di ñaan borom bi subhanahu wa may nu ñu fekkee ko ak jàmm te yàlla yëmbal yépp di nuyu tabaarakallaahu borom kër gi Cerno Hamidou Yero Bane di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñi ngi topp fii ci Safina TV ci seen émission bi nga xam ne moo di jaar-jaar yonente yi alayhim salaatu salaam mu mel ni sunu bindi bi weesu ñi ngi woon ci yent yàlla Ibrahima alayhi salaam Ibrahima alayhi salaam comme ni ko junje woon ak ni nu ko leerale woon ci bind bi passé wax la moom mooy kan mu mel ni e, werante amoon na ci Ibrahima alayhi salaam e, bi maana ay mbiram yi ci bari yoo xam ni werante nañ ca waaye man la wax naan man wax naan ni ne daal Ibrahima alayhi salaam e, mi ngi دومو تاريخ تاريخ دومو ناخور ناخور بن صاروخ صاروخ بن أرقو أرقو بن فالخ فالخ بن عابر عابر بن شالخ شالخ بن فينان فينان بن أرفخ ساسين أرفخ ساسين بن سام صام بن نوح وكان اسم أبي إبراهيم الذي سماه به أبوه طارق ñu ne kon papay Ibrahima alayhi salaam tur bi nga xam ne moom la ko way juróom tudde woon moo de taarix waaye wax nañ ni falama saara ma an namrus fii ma ala xazaini alihatihi azar waaw kon am na ñu wax nit ñi ngi ko tudde woon azara wa qaala mujahid inna isma azar laysa ismu abihi ku ni wax mujahid dafa wax ni eh, papay ibrahima alayhi salaam turam wii ñuy wax azara nee na aw tur la woo xamante ni turu xëram xëram la woon wa qaala ibnu as isxaqa laysa huwa ismu sanam bal huwa laqabun euh, kun wax ibnu nag nee na nekkul woon turu xërëm waaye aw sant la woon wala ab dàkkante la boo xamante ni bon ko daan dàkkante la loolu kon feeñ na ci euh, mbirum ibrahima alayhi salaam di way juróom boobu léegi nag boroom xam-xam dañu werante ci béréb bi mu juddoo ixtalafa al ulama fi l mawdi allazi kon boroom xam yi am nañu ak werante ci béréb bi nga xam ni fa la juddoo fa qaala baaduhum kaana mawliduhu bi suus lenn ci boroom xam-xam yi wax na ni moom mi ngi juddoo béréb bu ñu wax suus min ardi ahwaas ca suufus ahwaas وقال بعضهم كان مولده ببابل ام لين تي بروم خام خامي ابراهيم عليه السلام ميغي جدو فوني واخ بابل من ارض الصوت اصوات تا اسوف الصوات بناحيه يقال لها كوسا تي بن غوخ بوني واخ كوسا امنا لين تي بروم خام لو واخ لولو ني ابراهيم فوف لا جيدو wa qaala baaduhum kaana mawliduhu bil warka lenn ci borom xam-xam yi wax ni ibrahima alayhi salaam mi ngi juddoo fu ñuy wax warka naaxiyatin fi xuduudi kiskar ci gox bu ñuy wax euh, kiskar ah wax nañ ni bi loolu amee nag comme bi nante am na ci summa naqalahu abuhu ila mawdi illasi kaana bihi namrus nee na ci la ko way juram tuxale yóbbu ko ci béréb boo xamante ni foofu la Namrus nekk ci gox bu ñuy wax Kawsa loolu itam lennat la ci waxi borom xam-xam yi wa qaala baaduhum kaana mawliduhu Bihraan am lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ni Ibrahima alayhi salaam mi ngi juddoo béréb bu ñuy wax Bihraan walakin waaye nag li fi nekk abuhu baayam naqalahu moo ko tuxal ila ardi Babil ca suufus Babil wa qaala amatu salaf min ahli ilmi wulida ibrahima fi zamanin namrus lu ëpp ci borom xam-xam yi nag wax na ni ibrahima alayhi salaam daal mi ngi juddu ci jamonoy namrus bun kanaan waaw bu ko defee kon loolu ay werante la yu bari wa kaana bayna tuufaan wa bayna mawlidi ibrahima alayhi salaam alfu wa miataani wa salaas wa situna sana Eh, wax nañ ni kon mbënd ma nga xamante ni moo amoon ak jamono bi Ibrahima alayhi salaam juddoo mi ngi nekk junni at ak ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñett loolu ab werante la ab wax la wa zalika baadu xalaf adam alayhi salaam bi salaasa alaaf wa sab'in wa salaasina sana am ñu ni digganteem ak aadama alayhi salaam mi ngi nekk ñett junni at ak juróom ñaari téeméer ak fanweer loolu itam am na ñuy wax loolu kon daal ci gudd gàttal mooy Ibrahima alayhi salaam daal loolu ab werante la ci ay mbiram ci noonu la ko sunu borom subhanahu wa yónnee comme ni ñu la ko waxee woon ci bind bii weesu ci euh, mu tase woon ak jamono yi ku ni wax Namruus bun Kanaan mu mel ni kon Xalil Rahman xaritu sunu borom boobu subhanahu wa nga xam ne dafa juddu set wicc lii niroo xeetu bokkaale mosu caa dugg ba nga xamante ne fan yaa ngay wéy weer ya di wéy at ya di wéy ah Ibrahima alayhi salaam dañul daal di xool rek way juram ak nit ñi nga xam ne ñoo jamono doo ak moom ni ni jaamoo ay xëram mu yéemu ci loolu lool moo tax ni wa ma Ibrahim alayhi salaam ينظر الى ابيه وقومه وهم يعبدون الاصنام تي لول نك ويتعجب تي ليمو ويقول في نفسه موختي خلم كيف يمكن للانسان عاقل او لانسان عاقل ان يصنع تلك التماثيل والاصنام بيديه ثم يذهب ويعبدها من دون الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام xalaat parce que xalaat lu am solo xalaat na ci xelam waaw naka lay nekke nit koo xamante ni am nga xel tey jëfandikoo ak sa xel nga liggéey lu mel ni ki ay xeeram moo xam xeer ya yett la moo xam dénk yoo defar la kom ay bant ba noppi wëlbatiku di ko jaamu loolu daal naka la war a mën a nekke ah mu xam ni innaha tamathilun lii daal ay euh, statut la rek yoo xam ni ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp waaye gis na ne laa tanfa mënul jëriñ wala tadurru mënul lor wala taakul mënul lekk wala tashrab mënul naan te itam gis na ni bu fekkente ne kenn jugoon na sax pour bëgg ko yàq moom mënul défendre boppam kon yàlla joo xamante ni mënul défendre boppam ci bu nit jógee wala leen pour bëgg koo yàq loole mënul nekk yàlla mbokk yi wa badaat ah nubuwata sayidna ibrahima alayhi salaam wa huwa bi babil kon dañuy gis ni kon eh, yonent gi nga xamante ni moom la ibrahima alayhi salaam nekk di ab yonent booba ma nga babil foofu la ko yonent gi dabe wa kaana qad tazawaja qablaha bi imraatin tusamma sara nee nag foofu la ko sunu boroom dogalee mu am soxna su baax suñuy wax saarata wa kaanat aqimatan ay aqiman laa talidu yàlla dogal nag digganteem ak soxna soosu eh, nekk nañu ay at waaye amuñu doom yàlla dogul seen diggante ñu am doom mu mel ni kon nag ci biir loolu eh, la ñuy gis ni kon Ibrahima alayhi salaam ku am taxawaay la taxawaay bu rafet waaye nag commencé na warawoo nag aw ñoñam te moo di ay mbokkam pour ñu jaamu borom bi subhanahu wa taala kennal ko moo tax mu ni sunna summa inna ibrahima alayhi salaam daa abaahu azara ila diinihi kon ibrahima alayhi salaam commencé na nag ndax sunu borom defas na ko mu nekk di yonent te gis na ni ñii nekk ak ñoom ak moom li nuy jaamu yëlluwul mu war leen a woo waaye nag war na commencé ci woy juram mu commencé nag woo baayam Azara moomu ci diine ji nga xamante ni ci la nekk te mu nekk di diiney dëgg bi mu dikkee nag ŋàññiwul woy juróom dafa wax ak moom ci ak dal bi mu dikkee mu ni ko yaa abbati waaw li ma taabudu maa la yasma wala yubsir yow sama baay ana lan moo tax daal ngay jaamu loo xamante ni eh, du dégg boo ko wooyee du la dégg wala yubsiru lan moo tax ngay jaamu eh, koo xamante ni moom muy la gis wala yuxni an ka shay'an lan moo tax ngay jaamu koo xamante ni mënu la jariñ dara bi maanaam mënu la indil benn résultat wala benn njariñ ci jàmm gi nga koy jaamu eh mu mel ni kon bi mu dikkee ñett yooyu la njëkk wax parce que xam na ne yàlla ji nga xamante ni moo ko yónni moom dafay dégg am Ibrahima alayhi salaam kon kooku ku jara jaamu la xam na ni yàlla ji muy woote rawatin di ci woo baayam te njëlbeen dafay gis te moom ñoom seen yàlla yi du gis xam na ni itam yàlla jëm koy wooye mën na ko jural njariñ ba ko toppee te lam koy diggal mu ne ko nag lan moo tax ngay jaamu loo xamante ni eh, du dégg waaye itam du gis te mun laa eh, fajal dara mu mel ni kon ci loolu la Ibrahima alayhi salaam ubbee ak wooteem jëmale ko ci waajuram boobu waaye fa abaa abuhu al ijaba ila ma daahu mu mel ni kon e, kii di baayam azara bañ na pour wuyu ibrahima salaam ci loolu mu koy woo ndax lan li mu gëm ak limu mu jàpp ni lii kat mooy dëgg moo tax mbokk yi boo nekkee ci safaan té xamni ne ci dan nga nek da nga wara télé tourner li olaf di fal di waxe daw ci ba ngay ami tank lolou lu am solo waye dal continuer rek mom ibrahim alayhi salam bayam bobu di asara nek rek ci jaamu xeyram yoyu di ko yatt ba nopi di ko jaayuloo dom ji sax fof waye dom ji bu joge lamuy wax ana kan moy jënd lo xamanteni du deg ana kan moy jënd lo xamanteni du gis ana kan moo jënd yàlla joo xamante ni mënu la fajal benn i soxla te bët boo tawatee mënu la saafaral tawat boobu moo tax ñem ko doon jaay e wëlbatiku di ŋàññi kii di Ibrahima alayhi salaam dem ba sax di ko boole ak woy juram ne sa doom ji day li muy jaay la bu dikkee nangam ak nangam lay wax mais wax na dëgg kon wa sharral umur bokk na ci mbir yi gën a bon an yaataqida al insaan aqida baatila maanaam nit ki jug rek fas ci xolam fas-fas boo xamante ni ak neen la jàpp loo xamante ni lii leer na ko ni dëgg waaye mu téye ci rek loolu bokk na ci li gën a bon su ma takkuuna haasil aqida eh, gannaaw ba itam pas-pas boobu yaakaar ni mawridu risquhu daf koy jural wërsëg bi maanaam mën na koo bijjal wërsëg waaw wa muhitta amaluhu wa xayata saayuhu jàpp ni kon loolu mu topp daal te mooy pas-pas boobu mën na ko jural wërsëg lépp loo xam ne mébét na ko mën na ko ko indil te itam lépp lu may sàkku itam mën na ko ko indil loolu pas-pas la boo xamante ni eh, fa tabaarakallaahu eh, pas-pas bu doy di la bu nu gisee nag Ibrahima alayhi salaam eh, ñëw rek woo woy juram loolu dañ koy tegtaloo ci yonent Yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ca njëlbéen wooteem daxa waxaat amara allahu taala al mustafa sallallahu alayhi wa sallam an yabdaa bi ashiratihi al aqrabin kon jàpp na ni kon Ibrahima Mustafa alayhi salaam te moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee dafa ñëw rek woo ay mbokki jigéen ñaaleem wa anshir ashiratakal aqrabin woo ay mbokki jigéen ñaaleem wa kazalika kaana minhaju anbiya illahi jamian kaana minhaju anbiya illa jami'an fi daawa mu ne kon mboolem yonent yi dafa mel ni loolu seen doxalin la boo xam ne bu ñu dikkee ñu ni njëkk woo mooy seen mbokki yi jegeñaale ñi leen gën a sës waaye kon dañuy gis ni eh, ci woote bi nga xamante ni moom la Ibrahima alayhi salaam di woo woy juróom boobu ñëwul rek commencé ko eh, menacé wala ñëw de commencé mel ni lu xeeb yàllaam yooyu dafa ñëw wax ak moom ci ak dal waaye dafa ñëw wax moom ci xel te loolu mooy li nga xamante ni mooy li am solo bu ko defee kon mbokk yi loolu la alquran di wax ni wa is qaala ibrahim li abihi azara atattaqisu asnaaman alihatan inni araaka wa qawmaka fi dalalin mubin ibrahima alayhi ni a ah, baay gis naa ni ndax da ngay jàpp ay xërëm yo xamanteni dang koy def mu nek di sa yalla yak ñi nga xamanteni ño di say ñoñ di say mbokk di say nit man de gis na ni yow ak tabarakallah nit ñi nga xey ño top ci yow da ngeen nek ci ak cànkute gu leer kon nak walbatiku len ngeen jaamu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi innaha al tantiqu ala lisan ibrahim li moy lu set lu leer lu baax loo xamante ni Ibrahima alayhi salaam génne na ko jëmee ko ci way juram waaye itam jëmee ko ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ak moom di jaamu xëyram yooyu ibtidaan an takuna haasihi al asnaam allati yabuda qawmuhu aliha waaw commencé ko nag di yëjji euh, loolu nga xamante ni mooy xëram yi nga xamante ni moom la baayam doon jaamu ak mbokkam yooyu kon fal ilahu la si yu'bad yàlla ji nga xamante ni moom dana war a jaamu mbokk yi wala si tawajjahu ilayhi yàlla ji nga xam ni moom la ñu war a dëgmal jox ko nopp jox ko bët jox ko sunu xel di ko topp ci lu mu wax ñu def ko yàlla jooju mooy yàlla ji nga xamante ni boo nekkee ci jamonoy xat-xat mu fekk si la génne la ci boo nekkee ci bànneex itam mu ànd ci ak yow waaye <clears throat> yàlla joo xamante ni. danaka bo nek ci khat khat mën la ca génne bo nek ci ay jafe jafé mën la ca génne bo nek bo fekkee da nga bëgg xéewal mën la jox xéewal loolu mbokk yi du yalla kon koku modi ibrahima alayhi salam ca mbax ga koku modi ibrahima alayhi salam kuko wax nak comme ni ko waxan sunu bind bi wessu sa xel dem ci jamono ji li nga xamanteni ñu koy wajal modi euh, tabaski ibrahima alayhi salam <clears throat> moy ki nga xamanteni sunu borom mayoon na ko doom ca soxnaam soosu di Sarata waaye itam sunu borom mayoon na ko doom ci soxnaam soosu nga xamante ni moo di Haajara xam nga ni sëy na ak Sarata ay at yu bari lool waaye sunu borom subhaanahu wa mayu leen ca njaboot waaye bi mu takkee Haajara sunu borom dogal mu am ca doom fa samaahu Ismail ñu tuddee ko Ismail alayhi salaam waaye gis na ni itam ni eh, gannaaw ba. ki mu njëkkoon a denc muy sarata am nag moom doom ñu tuddee ko Ishaq kon gis nga def lu baax loo xamante ni jigéen def na la ko baax yaatal keneen ñëw ci kër gi daanaka rek mën na koo jural loolu parce que hal jasal ihsaan ilal ku def lu rafet rek su suñu borom fay lu rafet ci biir loolu ci la Hajara am doom muy Ismaila Ismaila moomu ah nekk ak moom Ismaila moomu Eh, fa tabaarakallaahu moom ñaana na Ibrahima salaam ni bu ko sunu borom mayee doom dana ko rey ngir jaamoo ko yàlla ngir sante ko yàlla subhanahu wa am na leen nag ci borom <coughs> afan ci borom xam-xam yi ñu wax ni daanaka eh, bi mu ñaanee loolu ba sunu borom may ko loolu <coughs> toog na ay fan eh, guddi gu mu gént ñu nan ko yow Ibrahima mottalil sa niser bi nga xamante ni moom ko niseroon waaye dafa mel ni juróom ñaari fan guddi jot rek mu gént ñu naa ko aw fi nasaraka mottalil sa niser bi nga xamante ni moom nga niseroon ci biir loolu nag wax nan ni ci la woo doomam jooju Ismaila alayhi salaam ni ko yaa Ismail naawil ni alxabla wal mitya yow sama doom Ismaïl jot ma buum gi ak paaka bi mu ni ko wama tasnahu bihimaa ya abba yow sama bàyyi lan ngay doye buum gi ak paaka bi mu ni ko asba'u kabsan dama ci bëgg a rendi benn kuuy bi maanaam benn xar doom ji dem andil ko buum gi ak paaka bi ca la ànd ak moom jëm ca waadi Muna ci biir dox boobu nag ca la ko Iblis al in dogale ne ko ilaa ayna tamdi yaa Ismaïl yow Ismaila ana fan nga jëm mu ne ko ah, damay ànd ak sama baay dafa am jaamu yàlla bu muy def fële ca Muna mu lankuloo ko pour mu turne ni ko sa baay dafa la bëgg rey mu la xamal ko ni ko yow sama baay rey gi nga bëgg rey ndax ci ndigalul boroom la bàyyi ko wala xalaatu boppam la mu ne ko ah neexul ba neexul na waaye mi nga amee ci ndigalul boroom mu ne ko waaw kon naka lay mooyee sama baay ci ndigal loo xamante ni mi ngi ko bëgg a dogal sama kaw te mu nekk ndigalul boroom di ko sànni ay xeer xeer yi mu ko sànni nag moo waral sànni jamra mu nekk di loo xamante ni du fay ba ilaa yawmi diin mu mel ni kon mbokk yi ci nii la Ibrahima alayhi salaam bëggoon ren di doomam jooju ngir jaamoo ko borom bi subhanahu wa ni ba mu àggee ca béréb boobu sell ba bu nga xëyee fa la ko bëggoon a reyee ngir beesal yéeneem def na effort bu nekk effort bu nekk pour bëgg rey doom ji waaye sunu borom dogalu ko kon fa tabarakallahu macha allahu kaana wa ma lam yasa lam yakun yàlla lu ko soob loolu muy am waaye lu ko soobul loolu du am ca force forcé moom ibrahima alayhi ngir bëgg a mottali nisaram boobu jël paaka ba heure bu jonjee ci baatu doom ja Ismaila dara du dagg wax na ni doom ji wax ak moom ni ko yow sama baay muurul ndax xam naa ni wala nga muur ma ndax xam naa ni boo ma dee xool ma lay xool dangay am ngay am yërmande ci man ba doomam mën a rey ca la baay ba def la ko doom ji wax waaye nag laa tey loolu itam am na doxalin bu am solo te moo di bi mu dikkee toog na ak moom doom ji def dialogue ni ko ah dama am ndigal lu bàyyi ko sama borom pour ma rey la mu ni ko yaa abati if al ma tumar yow saa bàyyi defal li la sa borom digal danaa muñ waaye muñ googu moo ko itam doxal na ko ci biir waaye itam doxal na ko ci biti mbokk yi Ibrahima alayhi salaam taxaw na taxawaayu dogu pour rey doomam doom ja fekk na ko ca loola waaye ndax sunu borom dana àtte loola am wala dépp sunu borom dogal na ci mbaaxam ci kartanam ba mu demee ba xool gis ni Ibrahima alayhi salaam lii mu waxoon kat dëgg la ci moom vérifié na li nga xam ne moo di xolam a ah, mujj na ah la mu bëggoon a am <clears throat> def sunu borom teggil na ko ko wax na ni sax foofu mboolem njanaaw yi nga xam ne ñoo ne ci kaw àdd ci àdduna ñu ngi àndandoo di wax ni yow sunu boroom yërëmal góor gu màgget gi nga xamante ni dafa bëgg a rendi doomam te amul benn doom bii yërëm ko baal ko di ko tiddul ci biir loolu sunu borom subhanahu wa taala yónni jibril alayhi salaam mu jël benn xar boo xay ma aljana daa di koy roof fi nga xamante ni fi la tëraloon Ismaïla pour bëgg ko rendi yàlla dogal mu rendi xar moomee Ibrahima alayhi salaam doom ja di Ismaïla daal di mucc ca rendi ga moo tax Ibrahima sant na sunu borom subhanahu wa taala ci ñàkk leen di gum leen di doom waaye Ismaila alayhi salaam sant na boromam ci ñàkk leen gum ko ñàkk leen waaye Jibril alayhi salaam sant na boromam ndax bu yeexoon ba nu ren di ko mënees naa tur of effacé aw turam ci diwaanu malaaka yi waaye itam xar ma sant na yàlla moom mi nga xam ne moo remplacé deretu yenent Ismaila alayhi salaam mu mel ni kon lii moo dox su diggante ak tabaski kon nak laaj na deug deug laaj moy yow mi nga xamni ya tim sa xar pour bu ko rendi sa xel delluwaat ci Ibrahima alayhi salam ci pas-pas bi mu amone ak yene bi mu amone pour beug rendi dom ji ba boy rendi sa xar bu fa puukare wu dug boy rendi sa xar bu fa ngistal dug boy rendi sa xar bu fa degtal nit ñi dug waye def ko li wajhillah kon xamna kon fi lañu ñuy taxawati danañu ko top inshallah taala di ñaan borom bi defal ñu dégg ak euh, topp di ñaan borom bi sàmm wattu na aar nu in uridu ila al islah mastatatu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh